kiisa jëf uh, ci seen déglu ci rajo Futurs Médias xalaas ji tijji nañu pàkk bi ngi fas yéene toog ci penc mi waxtaanee ko ànd ci ak uh, Hadj Makhtar Passepartout uh, yeneen goos yi danoo def rajo Brissonnière <laughs> Ndiaye nee na eh nga maam c'est-à-dire Abba itam ba mu xëyee ca fajar la envoyé message naan eh bien nga maam cest nga kër gi tam dañu war a wut le bâton et la et la carotte di tàpp parce que léeg-léeg te dafay laaj ci ci tàpp toto. pour booy mën a normal. Matar nuyu. Diagne nuyu. nga lay ziar. baa ngi lay ziar bu baax di nuyu suñu gars yi. Hmm. Ndiaye nañ ko. tubarkaal di nuyu Abba di nuyu monsieur le maire. Hmm. di ziar auditeurs yeeg internet yëpp di la ziar bu baax a baax. tubarkaal tubarkaal. sans wàññi. tey jii altine. tax altine tawarkàlla xalaas ji altine tey ji di kasu rajab di kas bésu kasu rajab tawarkàlla bu baax mi nga xam ni euh, tawarkàlla euh, loo wax ci moom rek mbay mhm. am nga loo bàyyi ndax euh, taxawaay wa ndax nitu diine ga mhm. ndax itam bëgg gi mu bëggoon sëñ bi mhm. donte waajuram la woon ba bëggoon na ko bay dem jël njuréel gi teg ko ne gindee ko taalibe ji yeggale jumaa ji Euh, miiree li nga xam ne mooy cimetière yi jiite na juma aj màkka mhm. teg ñu ci yoon wax ñu li gën a am solo ci doomu adama mooy di leen kër kër mhm. ndax kër kër jooju ñuy kër kër yi mooy indi kër te mooy sutura ndax euh, xamuloo fan lay yëf yi damme mhm. te ku ci ne war ngaa fàggu loo xam ne boo ëllëgee tubaarkalla boo guddewee sa njaboot bañ a fanaan biti te sëñ Fallou waxoon na kër kër yi mooy indi kër mooy tekki kon ku xëy rek danga war a jóg def dara dem nekk ci dara. waaw da nga nekk ci dara. Mm-hmm. waaw di ñaanal ñëpp màggalu jàmm. di ko ñaanal ñëpp ñu dem ci jàmm. ñëw ci jàmm tabarkal di ñaanal kilifa diine Sénégal yëpp. Mm-hmm. kilifa aada yi waa jàngu beeg. Mm-hmm. ñëpp daal. di gërëm tam njabootu sëñ Fallou. ci nañu yeesalee bërëbam ba ci jumaa Touba. doon koy fàttaliku am na ñaari ci ginnaaw ba nu fay dem ci ñu doon joxe barkeelu yi pour nu ya ya ya liggéey ba. waaye tabarkal na mu mujjee mel tabarkal laf cat. kooku mooy sëriñu Baye Sy. tabarkal mooy sëriñu Baye Cheikh. macha allah ndax nga Baye Cheikh. Baye Cheikh. Papa Cheikh Diallo waaw Papa Cheikh. Aliou Ba moom mooy sëriñu Papa Cheikh Diallo. mooy Aliou Fallou tubarkal ñu koy ziar bu baax a baax. Euh, euh, Diagne. Hmm. dañuy dem Ndar. Ndar ga sama dëkk bi. waaw dañuy dem diggante Ndar ak Mbirkilaan. Mbirkilaan. waaw Mbirkilaan nekkul boor yi. ñu ngi fii Saalum. Saalum gi waaw. Masam Masamba Tambiru mii. waaw Ndar la nekk liggéey waaye yàlla dafa dogal dafa am laago. Hmm. waa dafa am laago du dégg. Mhm. du wax. Mm. mais dafa foofu ci benn maire di liggéey foofu comme tailleur. pendant mm. quatre ans. Mhm. jóge fa dem seen kër Mbirkilaan seet papaam. Mhm. wala ñu bisi jeudi ba tey jóge na Mbirkilaan egsiwul daal. ah dafa càng ci diggante bi. ci diggante bi waaw. du dégg. du dégg du gis. du dégg du gis. maanaam koy waxee du dégg du wax su suur muet. suur du te du wax. ah. waaye waaye laago la daal. <coughs> kooku déglu. man jëmb jóob couturière à Saint-Louis dëkk Balakoos maa am njàqare di sàkku ndimmal ci sama tailleur bi sama tailleur bii dafa riir wi jeudi boobu ba tey jisuñu ko ndax dafa jóge woon ndax lundi dem seen dëkk mbir Mbirkilaan ba muy dem na dama dan ko dugal oto mu dem ba Nioro du Rip ñu ni borom oto bi om mat ko ci oto yi jëm Mbirkilaan borom oto ba dugal ko sa oto yi jëm Mbirkilaan ci saa si mu yegg woo ma ni ma agsi na si jàmm mu nekk fa dimanche lundi mardi mercredi ba jeudi matin woo ma ni ma teg nan ko ci oto yi sàllaaw lu mu guddi guddi dina agsi Ndar jeudi jeudi nag ba léegi ñun gisuñu ko fenn fu ne woote nan fa photo bii fu ne dugal nan ko fa nee na nañu daal jeudi lan ko dugal si oto yi pour nu yóbbu ko Kaolack garage Kaolack indi kandaar boobu ba tey nag gisu gisuñu ko fenn Masamba Tambédou la tudd papaam tudd Jibril Tambédou Birkilaan la dëkk wante Ndar la nekk ci man pendant quatre ans mi ngi ci man lii ma su dal lii ma su dal mi ngi koy soog a dal ma du ma si doon sàkku ndimbal pour ngeen jàppale ma si rek ba nu xam fu mu nekk jaaxle naa lool moo ma tax ma ñëw fii boobu ba tey gisuñu ko fu ne ñu ngi ko fay seet mbokkam yi si ndar suur muye la nag moom du dégg du wax muumin la daal wante xam naa ni jàng na métier ba mokkal ka mais du dégg du wax mais am na nu ma koy liyaare ba ma nekk ak moom pendant quatre ans maa ngi nekk ak moom loolu de xam naa réseaux sociaux yi moom baax nañu mm-hmm. waaye itam fang dajji gi itam baax na télé bi. waaw ñu jël ñu jël porteleem bi. ñu mm-hmm. ko fang ci télévision Futurs Médias. Mm-hmm. Walfadjri. Mm-hmm. seen TV. Euh, bu des. 2S. 7TV. ak ITV. ñu tekk si ñëpp di ko gis ndax sourds-muets la. dafay dafay laaj dafay daaju dugg dans la cadre de l'action sociale. journaux itam dañoo mën a jël porteleem def ko def ko avis. pour ku ko gis. nga mën a ñoo ñooñu nekk na ndax kii bala koos gu muy wax indi waa indi caabi ji waaw tubaarkàlla mënoo mm. mënoo yóbbu caabi mënoo jël sa caabi oto jël suñu caabi bureau mënul ne da nga jël benn caabi yóbbu bàyyi benn caabi kooku mbay la mbay fàltam amee nga nu yow tam jaaji waaw li ngay wax ni daal koo képp ku ci am information waaw na nga woo jëmb jóg nii waaw ci 77 445 71 87. te jëmb na moytu dóorkat yi di koy wan naan gis naa ko yónnee ma ñaari bu mu yónnee kenn paas. waaw waaw dem tam police na yóbbu tam xale bi police def eh, avis de recherche police. waaw moo gën a wóor ndax jamono fi toll. Mhm. da ngay ñaaw njort daal fàggu lu bëri. yàlla na ko yàlla nit ba mu dellu si si loxo <coughs> ñu doon ñu doon liggéeyal ca Balakoos. amiin Balakoos fa dëkk. waaw ah Balakoos. ASC Kaani gi ASC Pobal gi ASC Jëwlin gi mhm. eh, Carrefour CCC Corniche Carrefour Club. ma ma wax la ma wax la man sama diwaan ci Ndar. man foofu. man gis nga jaaj ay angle taal yooyu noonu. nga dem. waaw. ñoom Sor Diagne. nga Sor Diagne. Sor Dagg. Daaru dem Daaru. Oh. yow foofu yow yow te jigéen nga miine. waaw te jigéen nga miine yow. lew na si te ñax foofu la sax daan sàccee bi nekkee booy temps booy di dem lycée fay ñaan jël sàcc bay jël jël jël puso jëm ko ci bi du mën a yuuxu du yuuxu day noppi kutt ko yóbbu géej ànd a dossier yi <laughs> yow yàlla baal waay <laughs> yow nan dem ci mbay yàlla yàlla baal barki rasulaay jaañ ay day day dina moodu moodu yi nañ déglooti waaw xam naa ni lii hmm. bëri na ñoo xamante ni yóbbu nañ fi ay nit ci seen i tournage ñoo ñu jur te ko hmm. waxoon nañ fii ci ambassade bi ci VSF la xaw ma. waaw. fee fa lay jaaraan rek. VSF ñi defaree visa yi. waaw pour dem tukki ci tubaab yi. waaw te ñu tee passeport rek. foofu wóorul dara fan. waa ji dafa da doon indi jabaram. yónnee ay dossier pour ñu defal ko euh, traduction. waaw. ña mu jox kayit ya ci ay courtier yu bëri la jaar. Ah. ba jabaram dem na. waaw ba mu fàtte. Mm-hmm. waa ji xëy ambassade bi woo ko. ne ndax da ngay indi sa ay doom. waaj neen yan doom ñu wax ay tur ne ci sa këyit defaat nañ la ci jabar defal la ci ay doom. Mm-hmm. te fii la ci courtier yi. ci ci boo nekk ci boole Wakam. maa la wax lii moo jàkkaarloog UHO. ma ngoog. ay déglu seulement dama yónnee woon ay document pour sama jabar pour ñu ñu utal ko visa déjà rek visa bi rek pour ñu utal ko rende vous mais si ñaari courtier la jaar quoi affaire bi bi mu ñëwee ñu utal utal ko visa quoi mais tey ambassade daf ma woo daf ma woo laaj ma ni ma yow la diwu ma ne ko waaw mun ma ndax da ngay dugalal say doom pour ñu ñëw quoi ñaari doom man ne koy non non attends ban yan ñaari doom quoi mu wax ma ni ma kenn ki Anta Diop la tudd ki si des fàtte naa tur bi ma ni kon man ni leen déedéet ñu ne ma kon fii dañ ci monté ay faux document ay faux dossier si sa tur quoi waaw léegi nag ma wax ni kon kooku ñu monté faux yi cela veut dire que nit sama tur lañ jël utal ko yaay jël sama tur ak sama sant sama date de naissance utalee ko fa loolu te xam naa ne du man dong lañ koy def quoi parce que xam naa leer na ma ne am na ñu ko def mu rëcc te loolu tamit baaxul quoi parce que ay doomu jàmbur nga jural leen ki beneen papa bu ñu xamul tamit leen document bu ñu fii tamit mun na indi problème mun que man tey mënoon nañ ma indi problème defe ne damay def trafic de euh, visa ma doon wax nag pour nga wax si loolu pour ñeneen quoi beneen immigré yi buñ déggee loolu tamit xam def attention ñi ñuy jox seen documents yi quoi man xam nga affaire yi ni muy demee non moo gën a gaaw kii moo gën a gaaw moo gën a gaaw ngay nga jëlee si kii yóbbu si kii yóbbu si kii parce que si loxo yi jaar tamit dafa bëri quoi xam naa loxo yi mu jaar dafa bëri mais lii moom moo am quoi courtier yi la daal ñoom ñoo def loolu man moom wax dëgg neex yàlla xaw ma tur yi quoi mais ambassade rek dañ maa woo ni ma ko monté foo kii quoi wax ma loolu li ma wax ma tam ma tontu ko même boo bëggee ma envoyé la email yi ma leen bind. baax yàgg naa xew. ci fii. Ah, mais lii moom mën na ci am jafe-jafe. bu baax. ndax fa mu ne mën nañu ko ni da ngay def ay trafic def ay visa ak yooyu jàpp ko ca mbaa ñu delloo si ko fi yàq liggéeyam. xam nga moom dañ ko def ci ginnaawam. waaw ñoo xam dañ ko daan def. def genre regroupement familial. yóbbu ñu fay leen. jël seen jël koo xam ne dañ koy doomoo fekk ñu ko. Hmm. am na amaana sax xëy na léegi loolu moo tax regroupement familial xaw a xaw a xaw a sawee tuuti. waaw dañ ko dañ ko doon kon de mais waaw dañ ko def ci ginnaawam nag. li wóor daal mooy sénégalais nañu yeewu sam passeport sa carte d'identité nationale sa carte bancaire sa numéro carte bancaire yii doo ko jox n'importe kii munoo jël sa carte d'identité nationale ak sa passeport dénk ko Yacine Pouy xam nga Yacine Pouy dëkk. na la yàlla fay. muy photocopier di légaliser. Diagne waaw yàlla na la yàlla fay. ok Diagne en de carte d'identité. waaw. yàlla na la yàlla fay. Mhm. gis nga euh, arnaqueur yi. Mhm. ñu nekk ci internet bi di la naan la ay dañ lay may ay bagages ak. waaw ay yooyu. waaw waaw xam nga ñu si ëpp nag bu ñu dee góor jigéen ñi la ñuy waxal. Mhm. jéem a doxaanante ak ñoom. Mhm. bu fekkee profil jigéen nga nga wax ak góor ñi. waaw mais kii ay jigéen lay waxal. góor la bu def ay jigéen. profilu góor la. waaw di waxtaan ak ay jigéenu sénégalais. di leen di peeg. waaw waaw léegi bu leen diggee bagage nag. Mhm. dañ di ay quarante. digal bagage mooy la. comme naan la leen di yónnee ay. ah la yónnee ay takk daara waaw waaw waaw xaalis. waaw yéen gis ngeen yooyu. waaw bu ko photo yónnee ko. waaw moom lay utiliser di ci góor ñeneen. Hmm. jaañ quarante yi ma lay bëgg limal. Elisabeth Marie géey mm-hmm. carte d'identité mi ngi ci loxo dóorkat ya. Elisabeth Marie Guèye. Elisabeth Marie Guèye. Ah. ki ñuy wax jatu Dem. Hmm? dëkk jàmm gën Sika Mbaaw. carte d'identité ma nga fa. jaañ jaañ carte d'identité dañoo bari tellement ba nga. xam waaye yow yii doo ko yóbbu police. non dañ ñoom ko foto yónnee leen ko. waaw mais ko yónnee ba police xëy na dinañ ci def. opposition ba duñ ci benn benn transaction. Siré Diédiou dëkk jàmm gën ma nga fa. Siré ah. jigéen la waaw. Colette Ndour dëkk plateau gi non waaw dëkk plateau waaw. aywa yeewu leen <laughs> juddoo Louga. quarante ma nga fa. Diagne Diagne pare ku ma de. Sala Ndaw. tey. juddoo Sanjara. dëkk Grand Yoff gi ma nga fa. ah non Roqeetu Diop. Roqeetu Diop Diaw ah. Hmm. ma nga fa. léegi nag ñoom seen calendrier dañ koy foto di leen ko yónnee. di ko yónnee dóorkat bi. waaw moom mu jël ko def dem dóor ca keneen. dem dóor ci ñeneen. day dóor ñi ndul ña ca des. suba naa indil koo xam ne dóor nañu ko ci genre fee yi ay ku nekk bene utiliser calendrier encaissé fi xaalisu jàmbur. ci ay bagages. yaa illah illah ba yónnee nañu calendrier moom tamit. nañ yeewu internet bi nañ bàyyi. fii da ngay wax a wax a wax ba. nit ñi daal mujj gi sax yow da ngay da ngay mujj. war na xam nga si fi ñu dem nii. Hmm. xalaas gi di commencé nii. Hmm. wax naa la ma fi jógee léegi nguur laa jëm. gi. ci boor géej gi. waaw dëkki Bombardier. Sali waaw moom Bombardier la dëkk moom. xalaas gi dafay interpeller le maire de Sali. Hmm. parce que dafa benn femme bu ñu jaay benn terrain. ca Sali 2019. ñu ko jaay ay héritier lañu seen papa moo woon terrain dana ko doon ci seen baay. seen baay da koo jënd. Hmm. quelques mois après mu génn àdduna. mais clôturé woon nañ ko. yor ay kayit yu légal. Mhm. yor seen seen euh, non opposition yi n'appelle yore seen acte de vente. Mhm. yore kayit yu légal. Mhm. ñu jaay ko ndaw si biñ ko ko jaayee ndaw si jënd ko moo tamit ay millions yu bare. dem ca mairie ba pour vérifier ndax effectivement euh, kër gi amul benn litige. mu dem ko ñu xool ko ne amul benn litige. mu jël géomètre moom tamit jaar fi mu war a jaar yëpp. ba dem ba desul lu miite. fa mu demal ñun ko amul litige. Mhm. ñooñu ne ko kër gi boo ko jëndee am problème parce que dafa am ko moom. ah kan moo ko moom ñun ko benn gendarme. bu fekk jóg gendarme ba jaay ko keneen. Ah, ah, ah. na xaalisam ba pare. jaañ gis nga coow lii. héritier yi wax ak ñoom. Mhm. dinañ dem ca Saly. Mhm. parce que dafa am ay faux am usage de faux. Hmm. paa bi nga xam génn àdduna ñu defal ko benn foo carte d'identité. ay way comprendre ana bi ñu ko ko defaree <coughs> fekk paa bi génn àdduna quatre ci ginnaaw. lii dafa bëri ay affaires yoo xamante ni. yow lii nga wax dafa lëj. léegi nag. <coughs> dafa lëj léegi nag. waaw balaa ñu ciy def benn kii. comme mhm. gendarme bi aussi maa la koy wax léegi. amaguñu gendarme bi en question. Mhm. en tout cas Diop xam nga ko wante. xam nga turam ak numéro téléphone am. turam ak xam naa ba fan lay servir mais amaguma numéro. Mm, yaakaar nga fu waaw mais pour l' instant damaa dindi tur bi. waaw. ki nga xam ne moo nekk service domanial tamit. Mhm. wax nañ ni tur bi. ko dindi. bu ñu paree gën a approfondir. waaw soog a ñëw tëgg avec les waaw dem mhm. dem man may def audio bi pour wax leen benn affaire boo xamante ne depuis deux mille dix neuf mi ngi déroulé fi à te kenn mënu ko gérer muy affaire domaniale yi affaire kër yi parce que man dama jënd benn terrain depuis deux mille dix neuf laa jënd benn terrain ci ay héritiers ñoo xamante ne seen papa dafa gaañu. donc bi may jënd terrain bi ñoom dañ maa jox ay kayit yu leer li tax ma war a jënd parce que ñoom dañ maa jox acte original bi ma dem Saly dem xool ki ma fa fekk mu gérer affaire domaniale bi mu taal ordinateur am xool numéro bi na ma c'est ma ne ko kër gi fa kii bi acte bi normal na mu ne ma acte bi baax na tur bi moo affiché fii ma ne ko kon merci daal génn dem jëli le mu ñëw jël bu génnee ma sama borno na ma fii la commencé fii la yem loolu yëpp avant may fay la léegi bi may jënd kër gi loolu yëpp def naa ko ki ma jaay kër gi jox na ma bulletin de décès papaam jox na ma non appel ni opposition jox na ma certificat d'hérédité bi jox na ma procuration toute la famille loolu yëpp mu jox ma ko jox ma acte bi original bi donc man ma fay bi ma fayee nag ba dara desul lu ma muté ma demaat pour bi ma gindee di problème nga may wax loolu nekk tey ci temps boobu moom femme bi mook benn gendarme kooku ñoom dem nañu ba falsifier kër gi dem def ko miiti ko ci jóg mën koo jaay famille bi xamuñu ci ndax léegi famille bi ñoom bi seen papa gaañu bi seen papa deewee ñoom ba ñu ñëw bëggoon a régulariser euh, terrain seen papa am foofu seen papa ñaari terrain la gëndandoo foofu ci même zone bi 89 10 J ak 92 G ñaari terrain la seen papa jënd donc bi seen papa jëndee ñaari terrain yooyu seen papa malheureusement juin la ko jënd octobre seen papa gaañu seen papa gaañoo nag ñu ñëw pour vérification ñu wax leen la même chose que ñoom liñ ma wax léegi ñooñu ne ko ñu sam suñu papa mënut a jaay kër gi parce que mu ko jaayoon dinañ ñu ko wax te dina am acte de vente dinañ xam ne jaay na kër gi femme bi na ko kër gi daal jaay nañ ko jaay nañ ko mu ne ko est ce que mën naa xam ko ko ah, ko xam ndax bëgg na ngeen ngeen woo ko téléphone famille héritier yi def tout ba xam numéro téléphone kooku daal di koy woo wax ak moom leen kër gi moomu leen ko man maa ko moom mu ne ko non kër gi moomuloo man maa moom ñooñu ñoo ko kon ñun saisir avocat mu leen waa saisir leen avocat ñooñu di ci dox depuis 2018 man 2019 lañ ma jaay donc bi ñu demee ba benn moment ñoom kër gi biñ leen attaqué tribunal pénal juge bi jox ñu dëgg ni ñu ko waa ka ne occupé wu leen benn kii eh, eh, illégal donc ñu ne kooku yow dama nga seeti ki la jaay gendarme bi ci mu jaay ñu ne ko dama nga seeti gendarme bi ba xam parce que la ay kayit yu leer parce que kayit yi ay faux la gendarme bi tamit boobu ba léegi depuis 2019 ba léegi ki mosu koo gis mu taxaw tribunal ki mu jaay daal moom mooy ñëw man tamit héritier yi ma jaay ñoom toujours boo audience amee ñoom ñuy jóge dakaar ñëw indi seen ay kayit yu légal ñëw présenté wu mais à chaque fois ay renvoi renvoi depuis deux mille dix neuf ba léegi ci ay renvoi lañ nekk léegi bi ñu demee man ma saisir un avocat avocat bi bi mu ñëwee mu xool kii parce que avocat bi le lundi ñu dajee tribunal bi ñu dajee tribunal ñu woo sama avocat avant audience bi di commencé ñoom ñu ngi toog di wax ak sama avocat ñu ngi toog di wax mais exactement xam naa ci dossier bi lañ doon wax parce que bi ñu renvoyé ak kii bi audience audience bi bi ñu ko renvoyé ñoom ñu génn bi ñu génnee ñoom ñu ngi wax léegi sama avocat génn dossier yi faux faux yi ko def gendarme bi def yëpp exactement lii c'est du faux kii lii c'est du faux sama avocat daal ne xale bu jigéen bi secrétaire maire bi faire gère affaire domaniale bi mu ne ko yow xamante nga ak gendarme bu baax xamante ngeen yéen ñaar bu baax léegi da ngeen koy régler à l'amiable gendarme bi fexe leen ngeen gis ko mu delloo borom xaalisam ci mu jaay kër gi parce que dañ ne ñoom dañ ko dañ leen ko attribué mais terrain bi ñu attribué nit yow bu ñu la attribué terrain yow quel ton problème yow ban problème nga am bay seet yow kan moo njëkkoon a moom terrain boobu ba nga koy defal kat dante fausse kat dante bi mu defal yëpp yëg ñun te terrain bi mënuñu ko attribué parce que bu ñu lay attribué terrain il faut que mu bi donc ñoom ñoo def seen ay false faux ba mën a jël kii bi tout ko turu gendarme bi pour gendarme a bi mu defal faux carte d'identité pour papa yi ñi nga xamante ni ñoom ñooy héritier yi dem def faux carte d'identité boo xamante ne du sant paa bi du turu yaayu paa bi du sant yaayu paa ba pare ñu defal carte bi en 2016 te paa bi dee na depuis 97. gëm nga gëm nga wax ji du yem fii. yow góor gi 97 la génn àdduna. maa la wax lii. ñu yor ko carte d'identité 1986 2016. 2016. 21 ans après. jaañ jaañ lii lu compliqué la de. lii nax la ki kay moom lu compliqué la faaw nga jël sa temps. léegi nag. waaw mooy comme li ma la wax léegi. dañ ci interpeller le maire de Saly. Mm-hmm. interpeller aussi gendarme boobu sant Diop. Mm-hmm. bu ko déggee muy par rapport terrain bi nekk Saly te ñu clôturer ko. def réaction mu def réaction. wax dëgg moo xam wax tam position am. voilà maire bi mu wax. parce que parce que ñu ngi jot ci ay wéewu bay. Mm-hmm. ne gars yi ñu ngun nguni ak yenn avocats pour ñu ne gendarme bi nangu na. pour rembourser femme bi. Mhm. mais le problème bi mooy. fooy gendarme bi ak femme bi jaayante wu ñu jëndante wu ñu. moo ko remboursé. kon euh, jot mooy am na terrain bi ko jaayee ak lu ko femme bi jëndee mi ngi mel ni tey femme bi moom jëndee vingt millions exemple. Mhm. yow nga ñëw jaayee ko dix millions. Mhm, loolu mënut a nekk da perte. bëri na ay ay ay affaire daal yoo xamante ni. ci semaine bi dinaa ci indil yoo xam ne jaañ yu leer nañ dama lay ñaan ngir yàlla ngeen fii ba vendredi nga toog fii. Ah, suba moom dinaa ñëw. waaye àllarba àllarba alxamis aljuma ak aseer moom maam sama bopp maa ngi daal sama bopp damay nekk sama tool bi di ko bay fan waaw loolu kan takkal sa bagaas àllarba damay dem ndar bu soobee yàlla. parce que fa ma la fekkoon noonu. waaw damaa bëgg damaa fa. xam nga ndar bëri ay ruq. waaw waaw waaw mooy fa ma la fekkoon di di waxtam sénégalais yi. Hmm. nit du dañuy def compétition africaine ñu duppee ko BAL. basketball african league. xeetu ligue des champions basket la boo xam ne waa NBA Africa noo koy organisé ba équipe champion yi nekk Afrique. Mm-hmm. le cinq ci weer bi lay door. Mm-hmm. jeex quinze ci mi weer ña ngi koy def Dakar Arena. bële. bii ci jëm ñaaju. suñu Dakar Arena waaw ne ne ne ci ñëpp jóg. waaw ne si ñëpp jóg jàppale leen. Mm-hmm. ndax suñu su amee ndam. basketu Sénégal mooy am ndam. te basketu Sénégal ci góor ñi gëj nañoo dégg daal. kon ñu gannaaw jug noo ñoom ñoo xewle. na leen ñëpp taxaw. wallu leen te dimbali leen ci ci xaalis ci mayo ci sponsor ci tout. Hmm. ak si support. Dakar naa ne mel ne cin luy baax. waaw tubaarkàlla ma nga noonu. ku ci xalaas ñu daje ci. ah su ma paree xalaas du ma mën dem du ma mën naa bañ a dem réunion rédaction rek mën naa ñibbi. non Diagne yow ah. yow léegi fii nga bokk. parce que fee toog ñuy wax ay ay Ukraine ah <laughs> ay Russie ay bio ma ne yéen yi ngeen di wax man xaw ma fu mu ne. man dama ragal ne boobu noonu. ni ñuy coowee dugg fii ci léegi nanu nanu gore nag jamono jii moom fi seen guerre bi fu mu tombeel moom tirailleur xewatul. donc glace gi la glace gi la lii moom nanu guerre seen guerre duñu ay tirailleur on est libre et indépendant da leen sax télé bi rek mbay kenn yàq nit bu baaxee waaye ñëpp